من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo عندك ينتي تيري بلوغ المرام di jël tey xadiisu fanweer ak ñeent muy xadiisu asma bintu abi bakr radiyallahu anha wa ardaha mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal fi dami lxaydi yusibu thawba mu ne taxuttuhu summa taqrusuhu bilmaai summa tandahuhu summa tusalli fihi muttafaqun alayhi asma kenn la ci jigéen ñi nga xam ne ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ñi ko waroon dafa am ay góor ak ay jigéen góor ñi la ñuy tuddee góor ñi la ñuy tuddee jigéen ñi la ñuy tuddee sahabiyaat yenn saa yi gaa ñi ne rijalun xawla rasul yenn saa yi ñu ne nisa xawla rasul kon ay góor ak ay jigéen ñoo waroon yonent bi kii ñuy jàng tey di ñu nettali xadis bi kenn la ci ñoom kii nag asma abu bakr mooy baayam suñu waxee abu bakr ñëpp xam nañ kan mooy abu bakr siddiq radiallahu anhu wa arda moom asma wa qad wulida qabla albiisati annabi bi arbata ashara aman asma bi muy judd ak yàlla bi muy yónni yonent bi nekk na fukki at ak ñeent kon asma moo mage lislaam fukki at ak ñeent moom judd na ba mu am fukki at ak ñeent yàlla doog a yónni yonent bi yonent bi doog a woote ci lislaam mu ne liñ xam ci taarixu islaam moo ak pàppaam moom soxna si ak pàppaam ak jëkkëram ak doomam ak sëram ñoom ñëpp ay saxaaba lañ xanaa ñoom ñëpp dañoo àndoon ak yonent bi soxna si papaam saxaaba la papaam mooy kan abu bakar jëkkëram saxaaba la jëkkëram mooy kan borom këram boo xamee borom këram mooy kan am nga montre alors bii di ñëw ma jox la ko borom këru asma borom këru asma asma soxna si soo xamee borom këram nu mu tudd rek am nga montre alarba bii di ñëw incha allah keneen keneen allahu akbar kon yéen xamu leen borom këru asma naa ko bàyyee noonu ba dars bi di jeex ma seet ndax kenn dina ko xam ku ko xam rek yéen ñi am nga montre alarba borom këram saxaaba la papaam saxaaba la ah doomam saxaaba la doomam nu mu tuddoon kooku tamit bàyyi naa ko noonu doomam saxaaba la woon maga rakkam bu jigéen saxaaba la rakkam bu jigéen nu mu tuddoon rakku asma rakku asma aïcha asma ñaata at la mage aïcha asma ñaata at mag la mage Aïcha fukki at la Aïcha la asma mage Aïcha kon mu ne moom asma radiyallahu anha wa ardaha kon am na ci daraja moom sahaaba la sahabiyaat papaam sahaaba la borom këram sahaaba la rakkam bu jigéen sahaaba la doomam saxaaba la làq na lii lépp waaye moom asma taarixul islaam munu ko fàtte ndax dafa liggéey ci lislaam liggéey bu rëy ban liggéey la asma liggéey mooy keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay jóge mag jëmmitin bi mu nëbbatoo ci xeer ba asma moo doon togg guddi daf ko ci mbuus jël ndox daf ci mbuus daal di koy yenu bi mbagg ndeyjoor bi mbagg càmmoñ mu yenu ko ba egsi jox yonent bi lekk ak papaam ba yonent bi sax tuddee woon na ko benn tur yonent bi tuddee woon na asma benn tur hmm? Hmm? zaatu ni tax xëy ni borom ñaari mbuus yi tur boobu yonent moo ko tuddee asma radiyallahu anha wa ardaha borom ñaari mbuus yi wala ko yonent tuddee asma zaatu ni tax xëy borom ñaari mbuus yi ñaar yooyu la defar di ci def lekk di ko yóbbul yonent bi xaaju guddi soo demee makkatal mukarram nga dem loolu gaa yi di aj di wax kullub ziyaar nga jóge màkka nga dox ba xaaru xiraa fi yonent bi nëbbatu woon asma di fa ñëw sa yaram day daw naka la xale bu jigéen septième siècle doxi lëndëm gi ak montagne yi nga xam ne montagne yi màkka xeer yi ni mu ñawee day dagg tànk jaa jiit yi jaan yi lépp a ngi foofu lëndëm gi dara amul ndaw si gu xaaju guddi ci jamono boo xam ne ñu ngi wër yonent bi pour rey ko loolu yëpp mu xuus ko di indil yonent bi lekk ak naan am ne woon ñii ay dëgg dëgg dëgg dëgg mbaaxu yàlla lañ àndal ak kàttanam lenn di doomu aadama kese kese kese kese mënu ko foog yàlla dugal ci ndimbalam mbokk yi moom soxna si waaw bëggoon naa wax tur bi sax di turu jëkkër ji waaye naa ko bàyyi noonu doom ji mu ngi tuddoon Zubair ibnul Awam kon papa ji nu mu tudd ah doom jaa ngi tuddoon Zubair Zubair lan la leen fàttali bu ngeen déggee Zubair ci histoire islam lan la leen Zubair di fàttali Hajjaj moo ko rey moo ko rey wékku ko ci kaaba gi daa di wooy yaay ji ne ko kaay xool sa doom ni ma ko def asma daa di ñëw gis ñu wékk doom ji xajjaaj ne ko loo ci wax mu ne ko yàq nga àdduna mu yàq sa àllaaxira moom ñemewu rey asma mu daal di koy bàyyi mu ñibbi nee na ku tudd abu umar nee na tur boobu di zaatu nitaqayni yonent bi moo ko tudde asma ndax ñaari mbuus yu mu yoroon di ci def lekk ak naan di ko indil yonent bi alayhi salaatu wasalaam boroom xam-xam yi nee nañ asma moom moo mag aysa moo ko magee fukki at la asma magee aysa aysa moo doon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom asma moo ñu nettali xadis bi ñuy jàng tey mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci deretu mbërëg fi damil xayd damil xayd mooy deretu mbërëg jigéen su matee su mesurer dafa am benn deret buy génn ci moom weer wu nekk deret boobu mooy wane ne ndaw si mat na sëy ndaw si mat na mesure na war na jaamu yàlla loolu nag mën na génn bu amee fukki at ak ñett fukki at ak ñeent fukki at ak juróom weer wu nekk deret jooju dina génn ci jigéen ji lan lay wane mooy ku jigéen ki ëmbul deret jooju lan moo koy waral mooy ci biiru jigéen dafa am benn lal boo xam ne doom bu ñëwee ci lal boobu lay tëdd lal boobu lan moo koy formé mooy deret jooju di génn ci ku jigéen ki weer wu nekk deret jooju dafay ñëw lalu ci ku biiru ku jigéen ki daal di mel ne lal su ku jigéen ki sëyee ànd ak góor rapport sexuel rek liy jóge ci ku góor ki bu duggee foofu rek day nekk doom deret jooju dootul génn day nekk doom waaye dara jooju bu fa yàggee di xaar di xaar di xaar dara ñëwul di yàqu daal di génn loolu mooy deretu loolu mooy deretu mbërëg olof yi ñoo koy wax deretu mbërëg tukulóor yi naan ko damul xayt yi am fiileeru dégg nga de arab yi naan ko damul xaydu deretu mbërëg mbokk yi deret jooju la ñuy jàng tey ci lislaam deret jooju lan la dañ ko laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii damil xayid yusibu sawb bu dalee yére bu taqee ci yére maanaam comme ci jigéen lay génn loolu moo tax yenn saay yaay yi dañ leen di wax ne bu ñu amee doom bu amee fukki at fukki at ak benn di jëm ci kaw dañuy waxtaan ak xale bi di ko teel a préparé pour pour du génn génn ci mbedd mi dem fenn jàngi wala dem marché wala liggéeyi deret jooju daal di génn ci moom foofu fekk xamul lan la pourtant ba léegi mi ngi am léeg-léeg di nga gis xale bu jigéen bu dox ba ci mbedd rek ñu jël la dugal la ci kër wala am ku la dab daal lay jël musóoram daal lay woddu sër wala wala wala wala lu ko waral mooy dañ dul préparer xale yi dañ dul préparer jigéen ñi dañ leen di bàyyi rek ñuy nangar nangar yi ci mbedd yi yeneen saa yi loolu dab leen ba ci mag ñi sax am na ci ñoo xam ne du ñu xam seen aada ne man fukki fat ak nangam bu nekk war naa gis deret tey ji maa ngi génn te maa ngi ci sama jour boobu au lieu nga préparer sa bopp noonu la ñuy génnee seen yoon lu ji nekk suñu demee ba ci mbedd mi ci oto yi ci place publique yi mbir mi ne këpp seen kaw nit sax mooy jékki-jékki ne la soxna si yow day defarul defaral defaral sa say say sa sër yi am na lu ci nekk nga xool gis deret la commencé am problème kersa daal lay dab nga dugg ci kër wala wala wala wala wala loolu nag deret jooju su dalee ci yére su taqee ci yére yonent bi moo ñuy jàngal naka lañ koy def lu njëkk mu ne taxuttuhu dañ koy xoos maanaam dañ koy fete ba koy fóot su demee ba wow ci ba def trace boo buggee mu dañ foog nga fete ko pour mu dañ fete mooy lan mooy nga fóot ko soo koy def nag loo ci loo koy defee suñ lay wax fete ko lan nga koy booleel ah da ngay jël ndox wala benn matière boo xam ne leer na la ne boo ko ci defee deret ci dañ nga daal di ko ci def loolu mooy lu njëkk foog nga fete ko summa taqrusuhu la nga xoos ko bomb ko summa tandahuhu nga wicc ko ak ndox summa tusalli fii nga weer ko bu yére boobu woowee mën nga kaa jullee wala nga bañ koo weer def nga ko jeex na même bu fekkee ne sax trace mi ngi des ba léegi ci yére boobu mën nga kaa jullee parce que raxas nga ko fóon nga ko xoos nga ko fete nga ko def nga ci ndox léegi yére boobu su ma tusalli fii mën ngaa jullee yére boobu mutafaqun alayhi hadis bi suñ waxee mutafaqun alayhi lu muy tekki mooy Buxaari ak Muslim ñoo ko solo waaw mooy mutafaqun alayhi ba tey am na beneen àtte ci mutafaqun alayhi mooy suñu waxee mutafaqun alayhi lu muy tekki mooy hadis bi boo ñëwee ci muslim asma moo ko nettali nga dem ci buxaari asma moo ko nettali loolu bokk na ci àtte encore mutafaqun alayhi mooy hadis bi day bokk yax yi day nekk benn ki ko soloo nekk ñi ko soloo nekk benn su ko defee ñu ne mutafaqun alayhi dëppoo am na ci ci buxaari ak muslim hadis bi am na lu muy jàngale mooy al ay qawaid bi ci njëkk mooy anna al afdal fi ghasli al janasa al yabisa an takuna bi hazi tariq al murattaba li gën ci bis bu nekk bu ñuy fóot yére bu am sobe bu ñuy fóot yére bu am sobe ñu def ko nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci anam ñetti anam yi ñetti anam yooyu ñooy yan bu njëkk bi wax nañ ko léegi-léegi taxuttuhu waaye bu njëkk xataa yazulal jurum nga fete ko ba trace bi daal di dañ bu doon lu taq ci yére bi la boo ko bombee fete ko fete ko après boo bàyyee da ngay gis fi mu nekkoon daal di dañ loolu mooy bu njëkk ñaareel taq rusuhu nga xoos ko ah ñetteel tandahuhu nga sotti ci def ci ndox ñett yi dafa baax suñuy fóot yére bu am sobe tubéy bu am sobe sër bu am sobe mbub mu am sobe bépp place bu am sobe même bu dee sijaada la su fekkee sobe bi laal na ci dafa laaj ñett yi dina baax ñu koy utiliser ndax jëmm sobe bi mën a dañ ba tey bokk na ci njëriñ yi ñuy jëlee ci hadis bi danañ jàng ne anna damul hayd najas deretu mbërëg sobe la sobe la moom kenn du ko sikki sàkk saa yu génnee ci jigéen jigéen jooju am na luñ ko tere bokk na ci dootul julli bokk na ci du woor bokk na ci du tawaaf bu doon day aj bokk na ci du dugg jàkk du laal alquran du laal du laal bul wax du jàng de du laal du laal alquran yii dañ ko ko tere est-ce que dina dugg jàkk ah mën na dugg ci buntu bi génn ci buntu bi waaye dafa dul toog ndax yaay Aysa nee na yenn saa yi loolu daan na ma dal jaaro yonent bi nekk ci jàkk bi yonent bi ne ko jox ma sama jaaro bi mu ne ko yonent bi satuma de mu ne ko est-ce que sobe bi dafa nekk ci say loxo sobe bi dafa taq say loxo mu dem indi indi dugg daal di indi fekk jaaro bi dañ ci bindoon laa ilaha illa muhammad rasulullah boobu sax loolu la doon wax jaaro bi dañ ci bindi laa ilaha illa muhammad rasulullah mu ne ko jox ma sama jaaro mu ne ko ah yonent satuma de mu ne ko est-ce que sobe bi mu ngi sa loxo dama nga indi ma sama jaaro bi mu dem daal koy indil kon nañu xam ne deretu wasin deretu mbërëg sobe la al imaamu nawawi nee na wa dalail ala najasatihi mutazahira dalil buy wane ne deretu wasin sobe la nee na dalil yi bëri na dalil bu njëkk bi mooy lan ci hadis bi lan mooy dalil bu njëkk bi yonent bi neen nañ ko raxas su nekkee ci yére foog ñu dindi ko après ñu doog a jullee yére bi loolu day wan ne sobe la su fekkoon ne du sobe est-ce que yonent bi ne dindi leen ko wax dindi leen ko kon day wane ne sobe la moo tax imaam Nawawi mu ne wa dali wa dalail ala najasati mutazahir mu ne wala alamu fihi xilaaf ala ahadin min al muslim man imaam Nawawi de yëgaguma ci jullit yi ku wax ne deretu mbërëg du sobe yëgaguma ko man imaam imam Nawawi moom loolu la wax kooku mooy benn luy wane encore sobe la wa annahu yajibu yajibu ghaslu najasat min asiyabi inda iradati salati fiha li wane ne sobe la mooy bépp lépp lu taq ci yére ñu ne la balaa ngay jullee yére bi foog nga dindi ko wane ne sobe la ah kon mani yu lan la gaa yi yaa ngi delloowaat ginnaaw de ma ni du sobe ah mu taq ci yére ñu ne nañ ko dindi nga ne du sobe kon deretu wasi deretu mbërëg sobe la lu tax sobe la dafa taq ci yére yonent bi ne yére boobu balaa ñu koy jullee nañ ko fete nañ ko xoos nañ ci def ndox ñu doog a jullee yére bi kon loolu day won ne sobe la ñetteel ñaareel benn bépp yére boo xam ne am na sobe yére boobu kenn du ko jullee fekk borom mu ngi xam ne sobeen ci kenn du jullee yére boobu soo ko teyee nga jullee yére boobu sa julli baaxul boo demee ci laxdar yi daf lay wax ne boo jullee yére bu am sobe nga sëlmal gis yére bi dafa takk sobe mu ne da nga koy dindi ba pare nga baamtuwaat julli gi mu ne boo jullee woon benn yére nga pare nga wékk ko fii nga dem ba mu am weer nga ñëw nga benn bis ngay xool yére bi rek nga gis ci sobe bi nga gisee sobe bi sa xel dem ci ne yére bi julle woon nga ko bi nga ko wékkee fii léegi julli googu noo koy def mooy da nga koy fay même boo amoon 40 ans da ngay fay yére da ngay fay julli boobu lu tax mooy sobe kenn du ko jullee sobe kenn du ko jullee ñetteel mu ne wa ann izalatu najasati la yustaratu fiha al adadu mbokk yi dindi sobe kenn du ne dama koy raxas juróomi yoon juróom-ñeenti yoon fukki yoon téeméeri yoon déedéet dindi sobe daal da nga koy raxas ba sobe bi dañ rek te sobe baa ngi nii nga nga raxas ko mu des nga bëgg a julli mu lu tax li nga doon raxas setagul di kon na set nga julli su la leeree nag ne fóot nga ko raxas nga ko ay yoon yoo xam ne war naa deñ léegi yàgg bi mu fi yàgg wala deret ji xam ngeen deret boobu yonent bi wax na nu muy mel mu ne damun aswat yuraf deret la ju ñuul ju ñuy xam ba pare dafa am xet léegi nag deret ji comme dafay ñuul yenn saa yi parce que dafa yàqu loolu moo tax mu génn changer couleur ñuul su taqee fenn surtout bu dee lu weex wala yëre yu gaaw a tache yooyu gaaw a salte yooyu mën na faa yàgg pour mu set léegi nag boo ko fóotee fóot bu dëgër xoos ko fete ko yenn saa yi sax nga def ci ay matière saa boog yu demee noonu mu bañ a deñ set na wala setul set na yonent bi nee na laa yaduru ko asaruhu jeexital bi muy jeexital foofu du la lor maadaama set na waaye nag bu dee leer na ne deret ji dañul mu ngi nii wala dem àll ba yi dañul mu ngi nii wala saw mi dañul mu ngi nii raxas ba mu set rek dindi ba mu set rek nga doog ko nga doog a jullee al imaamu xataabi nee na fihi dalil ala anna najasat innama tuzaalu bil ma nee na lii lay wane ne sobe ndox rek moo koy dindi xanaa nag nga ñàkk bañ a am ndox waaye daal li wóor xëy na léegi ci jamono am na produit yoo xam ne danañ dindi sobe waaye daal li wóor moom li ñu jàng ci sunna te mu gën mooy ndox mooy dindi sobe fépp fu sobe nekk daal nañ ko dindeek ndox boo amul ndox nag lu la jege te mën a dindi sobe nga dindee ko waaye ndox moo gën juróomeel wa annahu la farq bayna qalil wa kasir fi wujubi tathir bu ndaw la sobe bi dafa ndaw sobe bi dafa rëy non loolu yëpp du sart loolu yëpp du ngànt mooy na dañ rek na sobe bi dañ rek sobe bi dafa tuuti kon jarta def ndox mu bari sobe bi dafa bëri nañ ci def ndox mu bari déedéet lii sart daal mooy sobe bi daf laa taq it fexeel ba mu dañ bu dee dafa tuuti na dañ bu dee dafa bëri na dañ loolu daal mooy sart juróom-benneel mooy fii jawaazu su'aalul mar'a ama ama stahya min zak min zakarihi aw min zikrihi dagan na ci texte bi jigéen am lu mu war a laaj mu laaj su fekkee dafa am kersa mën na def ni asma def ne yonent waaw deretu nangam deretu mbërëg su taqee ci biire boroom xam-xam yi dañu ne moom la woon boppam mais comme rus naa joxoñ boppam mu daal di mel ne yenn saa yi mën na mën nga yow dara dal la nga ñëw ci jàkk ji nga ni imaam waaw man de gis naa benn waay boo xam ne nangam te xam nga ne yow la loolu dagan na wala sax ci jàkk ji nga gis ko ko def nga ni imaam waaw julli def nangam wala wax nangam loolu lu ci islaam wax loolu dagan na ci diine ku xamul nga laaj ndax ndaw si laaj na am na problème mu daal di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi daal di koy tontu waaye mbokk yi ba tey mën nañoo jàng ci xadis bi bi ci suuf abu hurayra radiallahu anhu mu ne qaalat xawla ya rasulallah fa in lam yazhabi dama waaw a yonent bi asma laaj na ba pare yonent bi tontu na ko xoos ko fete ko def ci ndox après nga jullee yére bi léegi nag beneen jigéen daan ne waaw yonent xoos nañ ko fete nañ ko def nañ ci ndox waaye day jeexitalu deret ji des na lan la ko yonent bi tontu mu nekk yakfiika almaau wala yadurruki asaruhu yonent bi ne ndox mi doy na la ndax ndox mi ngi ci def bomb bi nga ko bomb xoos bi nga ko xoos